kilifa yi nga xam ne moo nekkee foofe xalifa Babacar Sall waa dëkk bu sell bii di Touba ngir mu war a gisante moo di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides ca jamono joojee vox populi du xamal ne maanaam daal ndax xalifa Babacar Sall moomee ak Karim Wade waaw lépp loo xam ne nag jëm na ci amnistie waaw maanaam daal seetal leen ba ñu set wecc ba lépp loo xam ne jëm na ci seeni droit civique ak yu ni mel ñu mën caa jotaat ki xam ne nag moo fi nekkoon jiitu mi di Abdoulaye Wade gisante gi nga xam ne daal jot nañoo am ngir tàkki jàmm yi nga xam ne daal jot naa am a ngir daara boobu yi nga xam ne daal dañu ko doon ubbi nekk na loo xam ne daal am na njëriñ waaw ndax ki xam ne nag moo di Marème Faye Sall nee ma jeegu pale jàppale ba waaw Marème Faye kay jot naa jubóoli ki xam ne di Macky Sall waaw ak ki xam ne nag moo di Moustapha Diakhaté gannaaw waaw mu dem jàpp ca loxo ba kaay nuyu la wax kaay nuyu ki xam ne moo di njiitu réew mi Macky Sall loolee ci li nga xam ne maanaam daal war naa mën a andi jàmm fi nga xam ne nag moom moo di foofee yéeni kaay bi ñu xamal ne ak lu mën di xew daal daara bi nga xam ne daal samp nañ ko ca jam ñaajo ca fondation Servir le Sénégal ne ci wàllu daara ci réewum Sénégal soxla nañ ko ci réewum Sénégal te jamono jooje synthèse ca le quotidien di ñu xamal kay Macky Sall kay gannaaw kay dogal bii nga xam ne daal jëloon na ko ji li nga xam ne nag moo di presse ki nga xam ne nag moo di moo di gëloo mu mel ne nag mbir yi nag daal dakaa desee neex kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko dafay xam ne daal njiitu réew mi daal waaw maanaam daal ak dogalam wërta nekk foofee ba muy dàq ka jëlee ka bàyyee ka yu ni mel turbine yéen kaay di yéen kaay di média gi di ñu xamal ne ak lu mën di xew daal li nga xam ne nag jot naa am ci réewum Sénégal waaw maanaam daal ci ëttu politique gi yàq der waaw ak transhumance gu métti gi nga xam ne am na ci lépp loo xam ne nag jëm na ci faana gu ni mel loolee la turbine yéen kaay xëye ku ko bëgg a xam fekk ko ci yéen i kaay Vox xamal ne taw yi nga xam ne nag jot naa am ci réewum Sénégal bëri loo xam ne jot na ci fànn gu mel mbir yi jeexagul de waaw des na de taw yi ànd ngelaw des na la ne loolee kay la xam te jamono jooju libération di ñu xamal ne moo di nga xam ne daal meneen mbir yi nga xam ne daal coow moom Sonko Sonko bi yëkkati woon ko yéenekaay bi bi di xamal ne Abdou Karim Sall jëf ji nga xam ne daal def na ko ci dëkk bu sell bii di Touba Abdou Karim Sall gannaaw bi nga xamee ne ñëw na ci dëkk bu sell di Touba daal wàccaayu màggal Serigne Mountakha Muntaxa Basiru Mbàkke a moo di Sëriñ Muntaxa di xalif a Mbàkke ak léegi nag may laaj ba xam waaw man ku juum waa nit ku juum ndax am na wala déet moom kay gannaaw ba muy ñëw jaawalewut këri diine yi ñun ñuy dëkk Tuubaa léeg-léeg sax ñu juum ci tur yi de li am solo daal mooy sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke yàlla na ko fi yàlla yàggal sëriñ Sidil Maxtaar Mbàkke yàlla na yàlla dolli ay leeram xalifa général Tijaan yi tamit yàlla na ko fi yàlla yàggal ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar